am humilité am granteur xool Barthélemy position bi mu nekk à la ville ak taxawaay bi mu am mu nekk léegi ville de Dakar Barth yóbbu na ko ci Sénégal fépp léegi. Mm-hmm. amatul frontière léegi tey ñoom bu ñu amee humilité ne Barth la ñuy def. seen tête de bu dee dëgg la parce que tamit mën na am heure bi mm-hmm. gars yi ci biir coow yi seen booy yi ku nekk bëgg ko sànni mais suñu réussiree loolu aussi tamit c'est une bonne stratégie parce que nee naa la loolu extra beneen bi Thierno Alassane Sall am na coalition bu am solo Sénégal kase sauf que Bart Bart nekkul tête de xam nga tey loolu aussi parce que boo xoolee coalition bi ñu ci nekk ñëpp ñoom seen tête de liste lañu demee mhm. voilà donc cette que Khalifa mi ngi fi boo dugalee Bart mhm. est-ce que ñeneen ñi dinañ ko nangu les xam nga tey parce que moom numéro deux la y a les leaders ci biir coalition bi waaw non xam nga tey ku mel ku mel ni Khalifa Sall mhm. gis nga boo demee taxawu Sénégal tey Ababacar Aba Mbaye c'est l'homme de cette assemblée nationale tey Khalifa Sall li ko ñoom Aba Mbaye lebal tey tey image yu Khalifa Sall am na lu mu de yàq ci côté essooru Aba Mbaye parce que génération bu bees bi Aba la ñu miin beneen côté bi Barthélemy Diaz ci li mu xeex pour indi xalifa mu nekk candidat li mu sacrifié wu pour indi xalifa mu nekk candidat aujourd'hui Khalifa Sall doyen la comme cër bi ñu ko jox mhm. mais moment bi Khalifa lan la mën tey mooy rassembler lan la mën tey mooy promouvoir ñoom tey seen seen seen mooy grand yi muy Idrissa Seck. muy xalifa Sall muy muy Kambale. c' est la promotion des jeunes comme keroog bi ñuy def atel ils ont privilégié teg ci présidium bi Pape Djibril Fall ak euh, Anta Babacar. Bougane waxul euh, Thierno Bo mais gis nga euh, gis nga tey 44 ans moo am président bu nekk. tey am 44 ans mooy Bassirou Diomaye Faye jeunesse bi décidé Ousmane Sonko aussi tamit bokk ci jeunes yi bokk ak génération ñoom Bart mais bu ñu yegsee foofu ñoom Déthié Fall ñooñu ñëpp jeune ñu taxaw daal di ne Barthélemy image bi mu yore ak tamit combativité bi mu nekk ak parcours politique am aussi parce que man mi wax ak yow nii nii ñun bi ñuy nekk jeune Barth ñoom ñoo nekkoon jeune parti socialiste bi ñu fiy jëlee Wade fekk combattre na ko ci bi ñu fiy jëlee Macky Sall na ci. bi ñu fi teg Macky Sall na ci li fi indi Ousmane Sonko aussi moo ko Ousmane ñaari doomu ndey la woon dem na ba ne li ma def ak Ousmane Sonko ñemewu ma ko sax wax ci combat bi. donc tey bu ñu see fii ñu reconnaître ko loolu aussi dañ koy na mais ñoom Khalifa Sall ñoom Idrissa Seck ces doyens là sur ces élections mën nañu coiffer mhm. mën nañu coordonner mhm. mën nañu harmoniser mais c'est l'occasion aussi tamit de faire justice et de faire la promotion des jeunes de leur parti au niveau de taxaw comme Abba ou bien Barthélémy Diaz donc ces élections c'est une élection des générations intergénérationnelles mais ñoom Thierno Alassane Sall aussi les autres bi la qualité des listes loolu moom mooy joué ci élection yi fi ñu jëm sénégalais yi dañu war a tànn parce que assemblée nationale bi ñu jëm presque moo nar a sauver Sénégal assemblée boobu moo nar a restaurer démocratie assemblée boobu moo nar a libérer les sénégalais donc on va on va vers une élection de choix boo xam ne avec lucidité bu kenn ñëw naan leen majorité mécanique parce que majorité mécanique dee na tué ko Ousmane Sonko nee na baaxul waaye yeeyu nee nañu baaxul. on veut l'équilibre des pouvoirs avec des députés qualitatifs ñu dem aux élections tànn ay députés yu am njëriñ tànn ay jeunes aussi tamit ñu dem à l'Assemblée nationale ak en dosé ko un peu avec certaines expériences. très bien très euh, dañuy ñëwaat peut-être am na benn problème boo xamante ne ñu ngi ci euh, faral di wax jëm ci éligibilité euh, bu Ousmane Sonko wala bu Barthélémy Diaz ñu ngi koy jéem a soulever d'autant plus que y a pas de révision jëm ci li nga xamante ne moo ñeel wàllub élection yi. waaw mais loolu yëpp boo gisee euh, mooy. man nag dëgg yàlla. Euh, élection yi li ma si jaaxal mooy parax parax gi si am man xaw na ma si jaaxal. parce que Kader Sànq xaw na ko soulever. élection yi soo xoolee dafa mel ne Ousmane Sonko moom moo yaakaar ne moom pare na waaye ñi mu àndal dafa mel ne pare ñu parce que boo xoolee par exemple tey Ousmane Sonko moom mën na jàpp ne moom fi mu toll moom pare na pour dem élection pour ñu. jëlaat li nga xamante ne mooy defaat benn assemblée bu bees parce que soo xoolee yàgg na ko wax dañuy tas assemblée bi proposé benn assemblée. mais moom est-ce que gàngooram si ñu nekk si ginnaaw muy waa parti passif membre passif est-ce que pare nañ parce que élection bi dafa am ay parax paraxe yoo xamante ne si wàllum confession des listes yi nga wax sànq si wàllum li nga xamante ne mooy révision des cartes électeurs yi si wàllum li nga xamante ne mooy disposition des sièges aussi si wàllum élection te loolu boo xoolee li nga xamante mooy protocole article 2 du protocole de CEDEAO waxoon na si waxoon na répartition yi nga xamante ne noonu la ñuy defee euh, liste yi nan lañ koy defee na la ñuy defee li nga xam mooy carte bi nan la li nga xam mooy siège yi te euh, boobu ba léegi waxagul si wàllum li nga xamante mooy tey ñii wala bindu ji nan la ñuy binduwaatee boobu ba léegi kenn waxagul si li nga xamante mooy sànq yaa ngi ko wax diggante bi nga xamante ne nit ñi coalition yi nañ wala mën a dugalee li nga xam ne mooy seen i caution ak li ñuy dugalee li nga xam mooy seen i liste pour mu mën a officiel loolu timing bi xaw na parax paraxe lool soo xoolee aussi ñeen ñi sax seen i cas éligibilité comme ku mel ne Ousmane Sonko mii wala li nga xam mooy Barthélémy Dias mii seen i cas leeralu guñ ko donc man damay demande wu sax est-ce que loolu nekkul sax ay violation euh, li nga xamante mooy violation boo xamante ne peut-être que euh, président bi def na ko si wàllum li nga xamante mooy répartition des pouvoirs parce que tey dafa am pouvoir boo xamante moom président moo ko moomal boppam waaye am na loo xam ne aussi dañ ko jalgeel dañ ko jagleel li nga xam mooy conseil constitutionnel am loo xam ne tey kur ko kur ñu ne dañuy dem si ay élection moo tax man bu ma gisee li nga xamante mooy waa ATEL ñoom pour cent parce que dama jàpp ne aussi élection yi lu tax ñuy préparé te man wax dëgg ba mu doon gis waa passif si boppam man jàpp naa ne passif si boppam pareegul si dem élection engouement bi mu doon gis si mbedd a i wala mi nga xamante ne mooy seen i siège wala mi nga xamante mooy seen ko et xam nga élection député yi da ngay ne munoo comprendre que benn commune par exemple boo xamante ne tey yow ñaari député ñoo fa génnee da ngay dem gis ne waa Pastef am na lu mat ay cinq cent cinquante députés yoo xam euh, cent cinquante candidats yoo xam ne dañoo bëgg a nekk si liste yi donc yaa ngi gis image sax que ñoom ñu ngi xuloo seen biir ñoom si boppam ñu ngi xiiroo ngaayoo ñu ngi xeex gis nga image yoo xamante ne ayib dafee ba mu fi demee fenn ba gis nga aussi ñeneen ñoo xamante ne aussi ñoom kenn ku ne da bëgg si yow Pastef yow nga nekk candidat yow aussi da ngaa bëgg ci loolu dañu ko jëm ci wàllu ku ci nekk bëgg bokk ci eh, liste yi pour nekk eh, député mais tey ak particularité bi nga xamante ne ne élection législative anticipée yi am nañ ko est-ce que jotul ku ca nekk mën a teel sa égo eh, pour profit dina jëm ci wàllu intérêt national mais xam nga aussi élection ak lu mu mënti demee. boo jëlee baatu anticiper ça si olof mooy lu ñu para para xew élection ak lu mu mënti demee dañoo war a jël seen temps ba lépp leer. man dama jàpp ne élection dëgg yàlla ñoom ñoo pare mooy Ousmane Sonko moom moo yaakaar pare na Diomaye Faye moo yaakaar pare na ak ñu àndal mais sur le terrain. ñoom pareeguñu te dëkk bi aussi pareeguñ pour dem si ay élection loolu laa gëm mais sans oublier élection bi ñu fi jógee jotee def élection bi léegi six mois dong la def te itam ci six mois yooyu naka euh, surtout suñu jëlee le cas de l'opposition def pour mën a convaincre les cinquante quatre pour cent yi nga xamante ni ils avaient euh, pour euh, le ñu nekk mais xam nga xam nga xam nga élection boo gis Fatima dafa am processus hmm. et dañuy respecter processus yi mënoo comprendre d'abord élection boo xamante ne déjà dafa war a am consensus ko dialoguer xoolal bëgg démb comportement ministre de l' intérieur bi bi nga woowee li nga xamante mooy opposition bi. Mhm. sur les règles de gentleman. Mhm. mais xanaa sax au moins nga mën a fexe ba yow boo leen génne ngeen ne tënk lii. Mhm. mais yow ñëw ak sa façon waxin ñëw aussi ak sa façon doxalin pousser li nga xam mooy opposition bi si ñu mer à la colère ba ñoom peut être ñenn ñi gedd dem seen yoon après yow nga ne élection dina am dans les dans les règles de l'art c'est dans la plus grande transparence et opposition bi ngi ñaxtu information yu a jot. de la part de l'État duñ ko jot aussi à temps parce que dafa mel ne comme qui dirait que da mel ne ñu leen xaw a information yi maanaam confisquer l'information euh, li nga xamante moo si war mais